بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, amaat nañ mbégte toog ci jataay bi nga xam ne mooy seen émission bi ñu duppee ëttu te ngeen di ko bàyyi xel ci seen télévision bi di Lamp TV ñu di ko am dibeer ju jot bu 22h jotee ci guddi seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll nekk ci micro bi feggoo ak Alxaaji Fallou sill eh, ci wàllu machine bi ñu àndandoo ak moom nag eh, di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di as seex Muhammadul Muntaxa di ñaan sunu boroom mu gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram kàttanal ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di jaajëfal bu baax eh, bokk yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci émission bi weesu te mooy njabootu sëriñ Saliou Mbacke Xaadimu Rasuul muy dongay tarbiye yi nga xam ne gis ngeen ne ñu ngi doon waaj ab liggéey boobu ba tey. di jaajëfal itam sëriñ Ibrahima Khalil Lo ci jataay bi ñu àndoon ak moom fële ca daaray Lagan tey jii nag ñu tàbbi ci ëttub lislaam di ëttub alquran di ëtt boo xam ne itam. ñu ëpp ci doomi soxna yi ci ëtt boobu la ñu bokk mu di ëttub Tayba e, ñu fas yéene waxtaane rek askan wu sel woowu nga xam ne bari na ci njabootu lislaam gi ak fuñ mën a ne koo ci laal du ñàkk mu maamu ci ba maamam sant sill askan wu sell woowu nag lañ toog tey jii ak sëriñ Mbàkke dina sill fas ci yéene waxtaan di ko bàyyee kàddu gi rek mu nuyoo ak bokki téléspectateurs yi su noppee nag nuyoo bi day ànd ak laaj bu njëkk bi bu ñu bëggoon a xam askan wi nga xam ne mooy askanu Taïba fan lañ bàyyi ko ginnaaw boo nuyoo ba noppi ana noonu ñu koy tënkale aouzu billahi min asheytan irajim bismillahi arrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi sawi radwan wa tamkin bismillahi irrahmani irrahim ya ayoha annaasu taqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluuna bihi wal inna allaha kaana aleykum raqiba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di jaarale sunu nuyu ak sunu siyaar ci sëriñ Fallou Gala Syll di siyaare mboolem mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan télévision bi ak site bi ak mboolem jumtukaay yëpp incha di leen siyaare bu baax a baax di rafetlu jotaay bi bu baax comme ni nga ko waxee sëñ Fallou naa ñu ñëw rek ci laaj bi incha allahu taala yaa ngi laaj askanu Taïba askanu Taïba di askanu woo xam ne e, comme ni ko ñëpp xame rek askanu bu yàgg ci lislaam lañu askan woo xam ne foo leen tudde rek e, sa xel dem ci alquranul karim di ñoo xam ne ñu naka jekk nit yi diine lañu yoo xam ne jàng alxuraan ak di ko jàngale di jaamu yàlla ak liggéey rek lañ leen xamee muy askan woo xam ne ràññiku la ji itam ràññiku la di mbokkum ñëpp itam waaye su suñu ñu bëggoon wax eh, seenu dikk ci eh, bawal ñoom fi ci tënk rek li nga xam ne eh, taarix moom wëral na ko. ginnaaw bi ñu bàyyeekoo Mali ca dëkk bi ñuy wax Tumbuktu euh, jaar nañ ci ay dëkk yu bare bari jaar nañ ci ay wàcc nañ ci ay dëkk ci côté Fouta waaye ba ñu ñëwee Njàmbur ci dëkk bu ñuy wax naan foofa li waral tur yi wax nañu ne sunu maam yi bi ñu doxee ba agsi ci bërëb boobu dañoo euh, taxaw ci ron kër ak guy booba it ñu yittewoo ndox waaye biñ toogee ci guy gi di serlu am ay doqi ndox yuy rot ci ci fin toog ñu xam ne bu ñu xoolee lañ gis ab bar ci biir ci biir guy gi ab bar ci la ñu wax ne a ah, bar da ñaare fa mu fa mu daan nekk ndox dafa sori bu ñu xoolee la ñu gis ci lëm ma ndox mu bare bari loolu sax tax na ñu bari ci askan wi eh, ci yeneen beneen côté bi daawuñu lekk bar ngir terale ko loola eh, bi ñu bi ñu gisee lool nag ci la wax ne ah fii de ko fi jekki naan fii ko fi jekki naan nag wax nañu moo indi turu njekki naan woowu. njekki naan googi nag fa lañ bàyyi ko ci sunu maam yu ñuy wax ma demba jëleen sil moom nag ay maamam ku ñuy wax maam kaango ak laango ak àndoon ak seen seenu géwél ba ñu wax ma jëleen caam ñoo doon dox baag si foofa ci tënk rek bi nga xamee ne ñëw nañ foofu ñu ne fii ku fi jekki naan ci lañu ñu ci dëkk boobu ñu far ko tuddee njekki naan waaye jekki naan lañ ko daan wax bi ñu fa nekkee nag ab diir am Euh, ndomb ak tànk boo xam ne dañ ko daan fale muy far ba njëkki naan yàlla dogal bi ñu ko def fale nag bàgg ci sunu maam ma dem jëleen moom ci la wax ne nag moom day faste yéene falu benn pal goo xam ne nekkul falu lislaam faste yéene pal goo xam ne daal boo ko falo ak polliku dutu ca dutu ca tegu mooy faluk lislaam ci la gàddaaye nag euh, bàyyi ko njàmbur dox jëm si bawal euh, wax nañu ne ànd na ak ñett doomam maxtar ma Demba ak Mor Baraan Sill ak Masamba Maram Sill ñetti doom yooyu la àndal biñ ñëwee ba dox ba yàgg taseeg euh, benn mbokk mu labiré ko xamal ko ne ko kat yow comme dañoo dañoo dañoo faat say njaboot yëpp mu des ñett nga yéene gàddaay ngir rawal leen ci lislaam ah li gënoon a rafet mooy nga tasaare leen ndax maanaam bu ngeen bokkee fi ngeen nekk euh, dara mën naa ñëw it jaaraat ci jaaraat fa bu ko defee askan wi doxal fa Euh, sànq ndax say ne kon da ngay sancal kenn ki fii euh, sancal ki ci des fii door yóbbu ko ci des wax nañ ne ci loolu ci la euh, ci xalaat boobu ci la moom la wéyale sancal ku ñuy wax Maam Mor Baraan dëkk bu ñuy wax ci la saati nga xam ne moom meñ ñi njabootug ci la saati kenn ki nag maanaa dëpp amu ci waaye wax nañ ne moo sañ ci sañ ci li nga gis boo demee ci ngay ngay maxe njabootug maam Ali Wale Sill ña nga fa wax nañu ne kenn ki foofu la sanc waaye li nga xam ne dëppoo ñëpp dëppoo nañ ci mooy Mor Baraan Sill moom moom la sancal ci la saate ànd ak nag benn doomam bi ci des muy Maxtaar ma Demba euh, dikk fi nga xam ne mooy ndogal euh, Mor Baraan moom sax mën naa laa indil tuuti ci ab silsilaam ngir mu gën a leer ndax Mor Baraan moomu ma Demba jëleen moo ko jur moom ak Maxtaar ma Demba moom bi mu sancee ci la saate dafa jël jigéen ju ñuy wax Fatma euh, dafa jël dafa jël soxna suñuy wax soxna Fatma Sall am ca ku ñuy wax maam góor Fatma Sall maam góor Fatma ak Baygaan Fatma ak Omar Fatma ma Fatma maam ma Fatma moomu nag moom Omar Baraan moom moom ma dem ba jëleen euh, moo jur Paate Aram Dikke Paate Aram Dikke moomu nag moo jur Mor Sill bàyyi. maam Paate Biram ak Omar Biram Moxtaar Ndaak moo jur Moxtaar Ndaak mi nag nekk baay moo jur maam Mor Jaara Silli ci ci la saati maam Mor Jaara Silli ku yaatu ku ab néeg la yaakaar naa ñu bari e, dégg nañ ko e, kon loolu moom silsila bu wér la boo xam ne njabootug maam ma demba jëleen lañ benn doomam bi nga xam ne nag moo ca moom la àndaloon ñëw ndogal muy maam Maxtaar ma demba bi mu ñëwee sëñ ndogal dala Buri Jang moo ko moo ko dalal ku ne xam na diggante ndogal nag ak Tayba lu yàgg la ndax boo delloo ngaañaax jeng bi nga xam ne mooy cosaanul ak njëkki naan daanaka ñoo digaloo ay tool kon man damaa jàpp ne eh, ñëw gëmuñ ñëw ndogal xëy na am na lu lu tax alaaxa bu doxoon seen diggante moo tax moo dabu si ko ngir xam ne kilifa la gu nekk ci gox booba bi mu gàddaay nag kon mu ñëw ngir ngir ñëw ci kilifa googa muy sëñ ndogal Abdalla Buri Jeng moom moo ko dalal eh, mu nekk mu ab diir ginnaaw bi nag mu xam ne doomi soxna kat Euh, na ko sëñ Tuubaa jàngale woon rek bu sëñcul réer mu daal ne kon moom euh, faw mu wut suuf soo xam ne da koy sañc ngir ak njabootam ëllëg mën fa nekk ci la ko sëñ dogal jox ndigal ne ko fii day ba sa maanaam fo ba sa bët yam foo mën a ci sama kilifteef la nekk euh, jox ko ci ndigal ne ko fa la ci soob rek mën nga faa sañc bi mu jógee ndogal nag dox jëm ca àll boobu ba ci fi taw bi nekk tey mu gis fa ay ay béb yu bare bari foo la sañc àndoon nag dongaam mu ñuy wax ñu Yaquba Gay ak doomam ji ñuy wax Maxtaar ma dem ba ñoom ñett képp ñoo fa nekk bañ fa sancee muy sanc bu métti métti nag waaye ñu nekk fa li nga xam ne mooy jàng alxuraan ak di ko jàngale bu ngoonee ñu tëral mu mu tëral dongaam bi mu yor bu guddee mu waxtu jotee mu dem mu dem majjaali ci dëkk euh, boobu ci ginnaaw tey tuuti foofu lay foofu lay majjaali euh, dellusiwaat nga xam ne dara waru leen àll bu lëndëm këris la woon ñoom rek ñoo ñu nekk fa biñ fa nekkee nag ki tënk ba yàlla dogal maam maxtaar ma dem moom yi doom jooju yi mu àndaloon gis na ne war naa samp kër muy maam maxtaar maxtaar ma dem ba maxtaar ma dem ba bi ma tee samp kër nag mu ne ah moom kat comme day doog di ñëw ci tund wi kon day delluwaat njaamur gëm bàyyi ko woon ngir wutale fa doomam ji euh, soxna ci la dellu njaamur ndax maam maam maam maam ma dem ba jëleen maram siisee la dëkk dëkk la dëkk ko woon am ca maxtaar ma dem ba ak euh, masam maram ak baran bi mu de bi mu ñëwee nag ba Maxtaar war a samp kër dafa dellu njàmbur ci dëkk bu ñuy wax njarmeew njina piir ñaar wax yi am na ci bi mu nuyoo bi mu agsee nuyoo genn góor ñu waxtaan ba mu teral ko teraanga ju mat sëkk ba waxtu jot ne ko ah moo euh, mu muur sil lu doon say tànk maanaam sëñ sil tànk mu ne ko am ah, man kat damaa sanc ca bawal nekkoon faak sama doom ji ñuy wax Maxtaar ma bëgg nag mu samp kër moo tax ma doon dellusi ca samay bokk ngir seetali ko ñu mën a jaxasool bi nga ko waxee mu ne ko ah euh, soxna sii doon toppatoo reer bi day sama doom la tey du waajal nañ ko ci waajkaay yëpp bu fekkee jubudale day man a la jox nga yóbbaale ko gis na mag ñi dañ daan tànnil lu baax ba gis na ma dem ja leen xam ne kii kat ku nitu yàlla la ci lañ ne ko ah kii kay moo ko mën a am fa tabarakallah ñu daal di waxtaan juboo ci loola sëriñ bi daal di wa wajuru soxna sax muy àndale siise mooy wajuram soxna sa Fatma an Fatma la tudd Fatma Siise mu woo waajuram wu tudd wu tudd àndale Cissé gaaral ko lim lim bëgg mu juba ci ak moom nga xam ne keroog nee nañ ma demba jëlee da ko togg ci aw fasam bi ñu ko ko joxee da togg indi ko tey bépp jox ko doom ji wax Maxtaar ma demba Fatma àndale Cissé Fatma Fatma Cissé moom la fa jëlee Fatma Fatma Cissé nag doomi àndale la moom moom moo doon moom Amari Gande Cissé moom yaa nga daan dégg bi mu ñëwee nag euh, jox ko ma Maxtaar ma demba mu amati ak moom benn doom képp bu ñuy wax ma Maseer Fatma àndala Maseer Fatma àndala moom mi nag wax nañ ne barkeb ba ci moom la ci moom la tàmbalee bi yàlla dogalee moom itam mu nekk foofa ganaa na ba moom itam mu war a samp kër fekk nag ñoom askan wi commencé nañoo jaxasoo waa mi fi njëkk jaxasool mooy askanu càqame ak lappe muy doomi soxna yi fi nekkoon di ñu ràññee ko njabootu maam waxtaan Omaana Touré ñëpp dégg nañ ko bi bi Masaar matee samp kër ci la dem mi ñu jox ko fa soxna Anta Touré moom bala Khoudia mu Maxtaar Omaane mu dajal ko Maxtaar ba dem ba. macha euh, jërëjëf euh, Baye Serigne day mel ne léegi tey liñ doon bëgg mu gën a leer ndax askan wu mel nii yaatoo nii am na xale yu ci bokk yoo xamante ni bii buñ ko waxtaanee wu ñoom duñ xam seen bopp te nit bu xamul boppam yomb yomb réeral loolu tax sax ngay junj naan sëriñ bi nee na doomi soxna. bu sañcut réer bu jàngut tilim bu liggéeyut loof bu jaxasoog bur yàqu kon gis nañ ne ndakate sun maam jooju nga xam ne moo di wax ma dem ba jëleen bi yàlla dogalee mu ñëw njekki naan ba jóge fi ànd ak ñetti doomam yooyu bi mu ñëwee maxtaar ma demb rek la àndal ñëw ndogal bi mu ñëwee maxtaar ma demba it bi mu nekkee ndogal ak moom ba yàlla dogal mu mat a samp kër gis ngeen ne daal wut rek na naa ko sampal fu ma neex. dama ne naa delluwaat ca samay bokk. ngir lan am jiwu wu rafet. waaw kon ma ngay tànnewaat ba tey ba mu delluwaatee foofee nag ca lañ ko jox nag Fatmata ànd la. Fatma ànd la moomu nag mu ñëw kon moom yàlla dogal na moom it bi mu nekkee maxtaar ba ma dem ba jëleen génn àdduna maxtaar magum jëmm la. bi doomam matee samp kër dafa mel ne dafa defaat nag na mbaayam defoon ngir delluwaat nag ci ay bokkam sampal mu mel na itam foofu kon Tayba Tayba bépp mooy ca moo moo mag ci Tayba yi ginnaaw bu ñu jógee Njëkkinaan. voilà Tayba moo lañ moo lañ sanc ginnaaw bi ñu jógee Njëkkinaan. Mhm. mooy mooy dëkk bi njëkk a sanc ma dem a jëlee it ma ko sanc booba it ñii la fa nekkal mooy ñi la wax rek Maxtaar doomam ak Yaakooba Gay Yaakooba moo fa njëkk a wàcc liggéey ñu denc ko ci almer yooyu. booba sax li lex amoon ci réew mooy ku masaa faatu ndogal lañ lay yóbbu waaye moom moo moo jëloon risque ne. donga dongaam bi moom faw ci suufam si la koy la koy denc ba sax sëñ sëñ sëñ ba laajoon na ko ci ah, aw naaru góor ba mu joxe ko ngir denc fa Yankhoba Gaye waaye comme li nga wax léegi rek ah, jiw bu mag ñi dañu ko daan tànn mu waral mu tànn mu tànn fa muy fa muy fa muy fa muy jële ji loolu waral mu dem ndogal jël fa soxna Anta Touré Anta Touré di sëtu Maam Maxtaar Omaane ñaari doom yu góor la ci am muy Masamba Anta Touré ak Maxtaar Anta Touré sëñ Maseer Fatma Andra delluwaat pew pew pew Fall pew ak ak ndogal benn lañ ndax soxna sama fa jël itam moo Anta Touré Moxtaar Omar dañuy dañuy dañuy ci ay maam euh, soxna Anta Kumba Anta Kumba Fall la fa jël am ca ñett doom yu góor mooy Bala Anta Kumba Fall ak Moxtaar Anta Kumba ak Barama Anta Kumba kon nga gis ne suñ maam Maseer Fatma Andra la yàlla dénk na ko juróomi doom yu góor muy Masamba ak Moxtaar. ak Moxtar Anta Kumba ak Barama Anta Kumba ak Balla Anta Kumba ñetti ñee bokk ndey maam Moxtaaram mi ma njëkk wax nag muy doomi Anta Touré mi jóge càq mi lappe moom moo jur ma maam Maseer Marema moo jur Maseer Marema Maseer Marema moom nag moo sañ ci tay ba xay moo sañ ci moom itam moo meññi eh, juróomi doom yu góor ak benn bu jigéen sëñ tay ba xay Matar Penda sëñ Taïba Xay Amadou Bamba sëñ Taïba Masamba Aminta Amadou Marème Balla ak euh, Soxna Xari Baame Sill ñu joxoon sëñ Taïba ma am ca ñum jàmm Massé Marème juróom ñooñu mën naa ko gën a tas ngir mu waaye xëy na bu fekkee mën ko tënk foofu rek mi mu bokkal ndey ak baay moom itam euh, benn doom bu góor dafa bàyyi muy Massé Marème Massé Marème Sill moom itam astafurlah maanaam euh, Massamba Anta Touré mu bokkal Maxtaar Anta ndey ak bàyyi ñaari doom yu góor la fi bàyyi muy Maseer Marema ak Modou Kumbaan Maseer Marema Sill moo jur sëñ tay euh, sëñ tay Daxaar Ahmadou Ndoumbé Mar Sill Modou Kumbaan moo jur Maxtaar Asta Diop ak Maseer Asta Diop mi maami docteur Xaadim Sill ak sëñ Asan Sill ñoom ñi waggal sëñ Mayib kon ñaar ñooñu mu ngi noonu maanaam ñaar ñooñu nag Euh, muy an Anta Touré moomu ñi tay Taïba Xay moo meññi kër Maser Xaali moo meññi kër Sëñ Mor Saafi moo meññi kër Amadou moo meññi ñoo meññi Taïba Dakar ñoo meññi Mirina Daaru Salaam ba Ndaw yee caaju yëpp daal mooy Moxtaar mooy mooy Anta Touré waaw nga xam ne kon ba ñaari jigéen ñooñu rek ñoo lay meññ Anta Touré ak Anta Coumba bu dee soxna Anta Coumba euh, maxtaar mim am maxtaar anta Kumba Fall moo sanc Kalom moo jur euh, Mor Ndumbe Njoora Mor Ndumbe Njoora jur Ibra Kanni ak ñi mbokkal muy maam sëñ Balla Paate kon moom itam ñoom itam noonu la noonu lañ demee muy maxtaar maxtaar anta Kumba bu dee ah, maxtaar anta Kumba Fall moom yi moom itam kon noonu lañ noonu la ñu demee mooy mooy Taïba Kalom moom euh, moo sañ ci Taïba Kalom benn doom bu góor la am Maxtaar Anta Kumba waaw muy Mor Ndumbe Njoora moom itam soxna soxna Ndumbe Njoora Touré moom soxna Njoora Jeng te yaayam tudd euh, ma As Madun Astu moom ma xujja ma xujja xujja Jeng ma xujja xujja Jaxate moom Maxtaar Umaane da ngay gis ba tey ba tey ñoom foofu la delluwaat moom moo meññi waa Taïba Kalom ndax ñett eh, eh, Maodo Mandior la am Maodo Mandior am ñett doom yu góor maam Makumba Lay Bira Kanni ak Moxtaar Njaay Dukke Njaay Dikke Makumba Lay moo jur sëñ Masar Anta Mbay mu jur sëñ Bala Paate mu jur sëñ Masar noonu la noonu la yaatoo eh, boo ñëwee ci Baraama Anta Kumba même bokkal ndey ak baay moom itam moo meñ waa xabsu moo meñ tey ba xabsu moom itam maanaam benn doom bu góor la ñu xam ci njabootam muy mayib sill maam mayib ma yëpp moo jur suñu xam si jaaja penda ak maam Masamba penda ak ak ak ak ñu mbokkal maanaam ma yëpp ma yëpp moo jur suñu xam si jaaja penda ak Masamba penda ak ñu mbokkal suñu xam si jaaja penda moo jur suñu Musaa Umi ak suñu suñ suñ suñ Basiru ak ñi fa nekk nii ñi fa nekk nii Masamba penda moom i nag moo jur uh, mooy maam sëñ Sidi moom si Abdou Lahad ak suñu Musaa Abdou Lahad ak sëñ uh, sëñ Abdou Lahad moom suñu Soyibu suñu la Soyibu ndax moo meññi soxna soxna sa sill euh, nu mu sax euh, soxna anta soxna aminta sill soxna aminta la am moom masamba anta masam penda moo ji soxna aminta ñu jox ko sëñ mañaaw moo am ca euh, wajuru soxna sill wajuru sëñ siidi amoon na amoon na ab soxna penda law bi ca tey ba xay ñu jox ko sëñ muxtaar si la moo am ca wajuru sëñ sëñ ab laatu bu kon moom itam noonu lañu noonu la ñu demee kon kenn kenn ci des muy muy Taïba Njaañ Taïba Njaañ moom itam euh, Balla Anta Kumba Fall moo ko moo ko sanc Balla Anta Kumba Fall moo sanc Taïba Njaañ moom itam euh, ñett doom la am muy Massiar Jaara Sill ak Mamor Jaara ak Moxtaar ak Sumboj Mamor Jaara mu béywul kon ñi des ci Taïba ñëpp sëti Mor Jaara lañu ak Moxtaar ak Sumboj euh, Mor Jaara moom itam moo jur sëñ euh, Bala Asta mu mag ak sëñ Modou Asta ak Mor Jaara Sill mu ndaw Bala Asta moom moo jur sëñ euh, sëñ Ahmadou Sill mi way juru sëñ Moro ba ma nekkoon Tuba Bago ak sëñ Fati maanaam moo jur moo jur sëñ moo jur sëñ Ahmadou Sill sëñ Ahmadou jur sëñ Fati ak sëñ Bala Xayta Daaru Musi way juru sëñ Mun Daayaan sëñ fa euh, sëñ Fati di way juru sëñ sëñ sëñ kon Taïba Njaañ lu yaatu yaatu la noonu noonu la ñu demee Moxtaar Asuma ma ci des itam moo meñ ñi ci des ci Taïba Njaañ muy Masiar euh, Fatma àndal ak ñi mu hmm. day mel ne kon bu ma déggee bu baax say wax day mel ne askan li mu yaatu yaatu ñaari jigéen a leen meññi ginnaaw bu ñu jógee ca fa nga xam ne mooy ma Fatma euh, ma ma Fatma ànd la ba desuwaatee day mel ne Anta Touré mi jógee càqami ak Anta Kumba Fall ma jógee Péw ñoo meññi tey ba yëpp nag mu mel ne nag. ci côté bi ci des bu buñ ci demee day mel ne ñun Anta Touré mooy doon sun maam ndax day mel ne fala la ma ndumbe maar cosaanoo yaakaar naa it fa la xaali mu tufay cosaanoo même meññi ak ñee ci aju waaye bu dee ba ci ñëw itam ay tay ba kaloo mag yee ca des yëpp ña nga jóge ci Anta Kumba Fall bu ca piw kon day mel ne ginnaaw boo xam ne ma dem ba jëleen sant na tay ba xay eh, tay ba bépp tay ba xay ga ca topp doomam a ko sanc mm-hmm. waaye ci loolu la silsile nag ba juróom-ñaari penc tay ba yëpp génn kon bëggoon nañoo ñëw nga ñëwal ñu ci sanc maanaam tayba yi jëmbi penc yi nga xam ne moom la njaboot gi sanc waa kay la kon mel na ni wax naa la juróomi penc yi cosaan muy tayba xay muy tayba bépp tayba xay tayba kaloom euh, tayba xabsu ak tayba daxaar loolu mooy juróomi penc yi cosaan yi sañcaan nañ fukki penc ak juróom ak juróom nga xam ne kon tayba yëpp ñaar fukki penc yi yu mat sëkk la yoo xam ne ñoom ñoo ñoo ko sanc manas manas na ko indi itam muy maanaa Tayba ba Ndaw kër sëñ Masamba Asta Masamba Asta Sill moo ko sanc Mbirina sil sëñ Mbirina moo ko sanc Daaru Salaam ba tey sëñ Mbirina ko sanc fu ñuy wax Tayba sanc maam Njaga Maram doomi Ahmadu Nomar Sill sanc ko kër Maseer Xaali sëñ Xaali moo ko sanc seetu Matar Penda Maseer waaw kër sëñ Mat Saafi Sill ba kër sëñ Ahmadou Sill Ahmadou Marème Balla euh, kër sëñ Massir mbay kër sëñ Ahmadou Sill ci Taïba Njaañ euh, ba kër sëñ Balla mooy kër sëñ Njaga jamono ji ñu toll ba kër sëñ Daam ak Taïba Njaañ kër sëñ maxtar Xëri ak Daaru Salaam ci seen ak Taïba Sanji kër sëñ Maxtaar Mati Kare ak Taïba kër kër maam Serigne Sill ci Turandula mu ñaar fukki penc yoo xam ne euh, njaboot gi askan wi sanc sanc nañu ko gën euh, fekk euh, fukki penc juróom fekk si fi juróom penc yu mag yi nga xam ne ñoo meññaat penc yooyu loolu lépp nag di ab liggéey boo xam ne mag ñi def def nañ ko euh, li ma wax toujours ne ñoom yaafuñu yaafusuñ benn yoon ndax boo doon xool tey li commencé tey ba nga ñëw ndindi daanaka lépp seen suuf la ci nii ak ci nii itam lépp ñoo ko ñoo ko sanc léeg-léeg taw màgg dem sanc wala doom dem màgg dem sanc ba sanc reesil dëkk yaatu yooyu yëpp te li taxoon ñu ko def it du la du lenn lu may yeesal taal jàngu yi rek sàmm alxuraan ak noonu li dëkk bu ci nekk tey euh, taalu jàngu nga fa di tàkk ba léegi te mel na it ba yàlla bañ ko sancee loola loola ko sanci waaye doonte kenn fa des itam ba léegi taal baa ngi euh, maanaam la ko sancoon ma nga fa moom ñu jàngal alxuraan ak di ko jàngale mm, xol seddaat na guy waaye itam yaakaar naa ne li tax may wax ne émission yi dana am njariñ mooy suñu caméraman bi ñu jàkkaarloo la moom mi ngi soog a dégg maamam muy alaaji Fallou Sylla mu sëñ Koso Sylla mu ngi cosaanoo tey ba kalom waaye yaakaar naa ne dégg na ci boppam tey ji loo xam ne ba mu dalee ba mu dalee jóg fi ne su koo dégg te loolu day nekk ay mbooloo yu bari yoo xamante ne bii ñu ngi ci biir mecc eh, ci biir réew mi waaye taxul ñu xam seen i maam xamul itam seen cosaan waaye da ngay xool ne lu bàyyi koo ca njëkk naan ca ay ay ay mille sept cent nangam wala ay mille six cent yoo xamante ni bii ba 2022 mu lu mat ay siècle lu mat ñetti téeméeri at nangam yoo xamante ni taalu jàngu Moustapha yi Moustapha yi nit mosu faa ñàkk di jàng alquranul karim kon ñooñu da ngay delloo askan woo xam ne li sun borom wax ne na nahnu nazalna zikra wa waaye wa inna lahu la hafizun kon ñooñu bokk nañ ci ñi nga xam ne ñooy wattu téereb yàlla bi ndax alxuraan kat ba mu wàccee ba nëgë ni su fekkutoon ne tuxu gi muy tuxu ci ay dënd di dem ci ay dënn nëgë ni mën naa am lu ci bare bari réer na waaye toujours mi ngi déplacé woo ci ay dënn di demaat ci yeneen i dënd dënd yooyu di ko denc ba yeneen dënd juddu mu defaan ci doon waaye loolu da ngay fekk ne askanu tey ba liggéey nañ ci lu rëy rëy li nga waxit ne euh, sëriñ bee ko doon junj ne doomi soxna bu sañcu du réer yaakaar naa ne askan wi duutu mën a réer ndax boo doon wut ci histoire wala ci taarix ci réew mi ñaar fukki pénc yoo xamante ni bii benn askan sanc nañ ko te penc menn raafu ci menn géntu ci penc mu ci nekk boo demee fekkaat fa koo xamante ni moomam penc mu tey di ko dundal loolu it boo ko doon seet lu yaatoo yaatu la waaye dafay mel na ci biir loolu damay jàdd tuuti rek donte lu bari jiitu na ko euh, dégg naa nga tudd ci biir yëf yi ku mel ne Mandoumbe Maar Mandoumbe Maar nan la ñëwee ci askan wi ak fan la sanc euh, jërëjëf laaj nga laaj bu am solo itam taalix bi ngay def itam mat na sëkk ndax loolu ñu bari dañu ko bàyyi xel waaye lu mat bàyyi xel la ndax euh, alxuraan moom bi yàlla ne noo koy sàmm dafa sàkk jëmm yoo xam ne nag ñoo koy représenté ci kaw suuf di ko ko sàmmal te askan wi yàlla boole leen ci ñooña ndax ñoo xam ne mën ngaa lim juróom-ñaari maam wala fukki maam yoo xam ne ku ci nekk ci taala jàng nga nekk ba ba ni nga génn àdduna loolu yombut a gis euh, fa tabarakallah nga ñëw nag ci kenn ci biir askan wi muy Ahmadou Ndoumbé Mar wax naa la léegi na la ci askanu tay boo la bokk ci Soxna Anta Touré ndax ma seer Mariama Sill mi wajuram Masamba Anta Touré ko jur Masamba Anta Touré Soxna Anta Touré bala xuja Moxtaar Omaane waaye Masamba Anta Touré ma seer Fatma Anta la ma Demba Jaleen Euh, Masam moom nag ak Maxtaar ñoo bokk ndey ak baay Maxtaar moom la ñu waa tey ba xay waa tey ma la ko waxee woon léegi euh, Maseer kii nag Masamba Anta Touré nag jur Maseer Mariama mu meññ Ahmadou Nomar si li muy sànci tamit la moom mi nag nga laaj moom mooy kan euh, kon noonu la demee ci askan wi booy jërëm itam tudd Soxna Mar Diop dëkk-dëkk bu ñuy wax Ndiireen foofu dinaa fi fàttaliwaat tuuti ndax lu mel ni li. sëriñ ma dem jële moom defoon wuti jiwu rafet ngir waajal ëllëg loolu tamit suñ borom daf koo def ci soxna maar Jóob moom yi ndax wax nañ ne ma maseer moomu yàlla dafa dogaloon ci ak mujjam gëdi gëdi sëgg te màggatum sëriñ moom faaw neex dara du ko du ko yomb waaye mu def ku bëgg yàlla ku ku sunuwu lool yàlla dogal nag euh, góor gu baax di way juru soxna maar Jóob gis ko am yéene ci moom lool daal di ne dokk ma day am na lu ma ca gis loo xam ne xeme naa ko lool daal di ñëw dajale ak njabootam gépp ni leen ah man day gis naa góor gu baax ci tay bépp ah bëggoon day ci yéen ku fa liggéeyal yàlla ko waxee ah xam naa ne ñu bari gis na daal mag mu toll foofu ci at wax dëgg yàlla ak gone yi ni ñu mel loolu daal xam na xaw naa kii ci ñoom waaye suñ borom dogal kañ ca gënoon taamu moom moo ju dax taxaw daal ne ko day man boo fa demee boo fa demee danaa fa liggéeyal yàlla muy soxna Mar Diop sëriñ ba daal cee bég lool daal di koy waajal def ay cere njanja euh, war waral ko ci fas ñëw jox ko addiya mën euh, masière Mariama ak fas ak fas ak lépp soxna soosu nag ba mu fa nekkee wax nañu ne moo taxawu sëriñ masière ci liggéey bu am solo ba yàlla wërsëgale ko wërsëgale ko fa doom ñuy wax sëñ Ahmad Nomar Sill am na it jigéen ñu bokkal lay ak baay mooy soxna Astu Sill ak Mariam Balla Astu Sill moo ci sëñ Masamba Xayta Mbay am ñett doomu jigéen Xayta Mbay ak Ndaag Mbay ak buubu mbay ñooñu askan wu yaatu lañu Marème Ball lañ yóbbu ko kokki ci sëñ Balla Sala moom Ngor Faaxu Ja moom Maxtaar Ndumbe mu am fa euh, Balla Maram Diop waajuru sëñ Maxtaar Ndumbe mi nekkoon Mirina Baye Yub Baye Basir Diop moom Bakel ak ñu bokkal sëñ Balla Sala ca Mbuuru ñaar ñoo la bokkal kon moom benn benn góor rek la ci ci waajuram muy muy muy muy muy Maseer Marema yàlla ate nag bi nga xamee ne. mama ser marin moom mu toll na ci ak mu jëm bi mu tollee ci waajkaay daawoo Ahmadou Noumar ba mu ñëw mu rax sa aliwoo bindal ko ca bismillahi rahmaani rahim daal koy sax ba miim daal di ne ko dénk naa la yàlla kàddu googu la ko wax ñu teg ci ay fan sëriñ bi wàccub liggéey ma ser wàccub liggéey ñu denc ko ci tey bépp. waaye man du mémoire la woon taawam. waaw du woon taw waaye mooy taw ci góor ndax moom dong la am ci góor ñaar ñaari moom am ci góor ak ñaari jigéen bi mu wàccee liggéey nag euh, xam nga wax ju mel noonu ci bu njëkkoon maa ngi niñ bëgg yàlla wax ja ca dëj ba ñëpp di ko waxtaane am ma day day saan benn doom rek dafa bàyyi waaye mu de nee na yàlla la ko dénk ku ne naan dénkaan yàlla te dal jàng la toll moo ko dalal ba sin mim sëriñ bu baax muy sëriñ ma jàqale Masamba Faxu Ja bi mu ko déggee moo ne ah dénkaanal yàlla ci kaw suuf maa ci yaay dal ne daal di yónnee ndaw ne nañ ko nañ ko ko fa bàyyil dina ko jël si wax nañ ne moom da doon borom barke boo xam ne dawul jug ci waxtu nawet moom suñu jàqale ndax gawar bi muy àndal bu jugee ci nawet li ànd ak moom tool bu mu jaar rek euh, ñu forman ko moom war nañoo gën a xamaat moom it nan la bokk ci askan wi. sëñ jàqale sëñ kër Ndumbe maanaam ki ko jur mooy Massamba Faxu Ja Maxtaar Ndumbe kon benn la mooy sëñ kooki Maxtaar Ndumbe mooy mooy maamam Euh, moom moom moo ko yóbbu moo moo ñëw jël si ko bi waxtu jotee bi ñu laaj si ko ñu ne ko ah, soxna Mar de liggéeyam ba àgg na ba delloo na ndiireen moo daal bàyyi ko tey bépp jaar ndiireen dem laaj ko ñu jox ko moo yóbbu ko deqale jàngal ko alxuraan bu mokkal mu jàngal ko it xam-xam daal di yëkkat doomam soxna Xari Jaxate jox ko mu am ci sëñ Mirina ak sëñ Mor Xari Sil kon lo taxawaay boobu sëñ deqale ma euh, ma ndumbe ñu ne ma Masamba Xari moo ko moo ko moo ko def ci moom moo ko jàngal lépp lu mu war a xam. sambal ko kër itam kon loolu mooy ak njëlbeenam bi mu noppee nag la ko la ko booleeg soxna sax ne na daa ñëw dellu si kër baay yeesalaat baddalewaat sanc ba ci loolu nag ci la ñëw tay bépp sancaat ngir wéyal daara ja ba mu sancee itam barkeel gum barkeel tax na daara ja xumb lool ñëpp ñëw fa di jàng euh, xam-xam ak lépp ndax yàlla da ko defaloon euh, mu teel a am xam-xam lool lool lool. bi mu jógee deqale fan la sañ si waat. tay boobu la ñëw sañ. daañu waat tay boobu kër baayam la ñëw dañuy si. mooy cosaan la nekk na ab diir. ba yàgg nag mu door fa bàyyi ko ñëw tay ba ñëw Tayba Daxaar laata loolu sax euh, bi mu nekkee tey bépp soxna si moom mooy soxna Xari Jaxate wax nañu ne wéetaay bu mu wéetaay tax na benn bés mu sàkku ci moom ngir mu wutal ko wéetal ci kër gi ndax daara ja xumm na te liggéey bi dis na ci moom te jamono yooyu boobu moyen jafe na sëñ Maseer bind ab ab kaamil ngir bu ko jaayee lu mu ci mën a am xëy na mën cee wut toppatoo loola moom mu maar kaamil boobu nag mu bindoon moo ko dem ba Mbamba Sall ca eh, sëñ ba Sall moom mi ba fa demee nag sëñ ba ne ko ah li ngay wudde am na fi waaye am na lu ko gën boo toogee ab diir ñu fàggul la ko mu daal di toog nekk moom ca daara ja bu xëyee di bindal di bindal dongo yi di raxas aliwo di topp oy beq yi. bàyyi soxnaam te. bàyyi këram. dem ba Saalum am diir waaye soxna si def ca mat gu mat sëkk soxna xëri eh, jaxate maanaam ku ñëw mu ne ah ku ñëw ngir jàng si mu ne ah sama borom kër de kenn raw ko ci tund wi waaye daa génn rek mi ngi ñëw. bu dee noor dana fi téye ñoo xam ne danañ ko ruujal ba ruuj ba ruuj bi àgg bu ñu teye ba yàgg ñu ne ah sëñ bi di gënaaw a bu ñu demee ñeneen ñëw bu ñooy ñëw ñooy bàyyi nawet bi ñu ne ah xanaa comme ñëw gu daal euh, bayoon nañ bu ko defee moom ñuy bàyyi da leen da leen di wutal seenu lew bopp bu ñu bàyyi ba àggal te gis ñu sëriñ bi ñu daal dem def na ko ñetti nawet yoo xam ne bu ci ne moom day ay sàq lay lay sembu te mbooloo ñoo fay ñëw ku ñëw mu ne la ah waaw ku ñëw ku ñëw mu wax loolu nga xam ne kon da ngay gis njàmbaarte gu rëy googu mu fa def bi yàlla nag mu nekk Mbamba sàll euh, fekkante fa ak sëñ Mor Anta foofu nag la seen alaax gën a dëgëre ndax day woon nañ sax deq la wax nañ ne waaye ñoom ñoom ñaar nag ñoom bokk benn bés boo xam ne ci la leen seen sëriñ ba woo ba ñëw ñu mu yëwee leen nag dañu yëwee dafa dajale daara yëpp xamal leen leen daal fii li fi newoon ñaar ñi yóbbu nañ ko muy Ahmad Nomar Sill ak Mor Anta Sali daal di ne nag sàkku ci ñoom ñaar na leen euh, dafa wax sax mboolem ña fa nekk na leen day mbo ëllëgee de lépp lu waaye di daboo seeti kenn duutu jóge fenn di jëm si fi waaye lépp ci ñaari kër yooyu nga koy wari ji te loolu feeñ na tey ma Sall kenn déggatu ko te daanaka daara ju ñu daan dellu la waaye daa daa mel bañ fa jógee ba tey kuy wutati xam-xam foofu nga jëm kon wax jooju ñëw na mu daal leen nag ñoom ñaar dama ku nekk tudde doom wax ko ñoom wax ko sëñ Morante Sali wax ko Ahmadou Mar moo tax ba sëñ Morante Sali ñëwee am sëñ Mor Jaara teg ci si Ahmadou Bamba tudde ko ko sëñ Ahmadou Mar itam bi mu ñëwee dafa taawaloom Masamba Asta. waaye nag teg ca Masamba yi ndax mooy sëriñam bi ko njëkk a jàng alxuraan yar ko defal ko lépp tegaat ci Bamba Faaxu je tudde ko ko loolaa waral Maam Mor Anta Mbàkke tudde ko Seex Bamba doon na ñool Makka man duma maa tudde ko moom it Bamba mooy Faaxu je moom Faaxu je muy rekk Seex Masamba macha allah macha eh, jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Mbàkke eh, gën naa leeraat xam-xam bi leer na lool waaye ñu xamal bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ne incha allahu rabbi Eh, boo gisee ñu jàdd jëm ci Mandoumbe Mar rek dafa am lu ñu bëgg a leeral waaye incha allah bu ñu jógee ci ma Mademba Jëleen nga xamante ñëw nañ ci Masamba Anta Touré ak Maxtaar Anta Touré daañ ko topp noonu ba penc mu nekk gis sa bopp ci jataay bi incha allahu rabbi mu mel ne kon gis nga sëriñ Abdoul Ahad yàlla ñu ko yàlla fayal wax nañ ne am na mbokk mu ko mas a laaj na ko ndax bàmba ji yaay yaay doon na ci dara mu ne ko bàmba ji lépp yaay la daal di ko ne sëriñ Tuubaa li mu yor liggéeyum ndey du ko maye. waaye ku sa ndey liggéeyut nag doo ko fa xaar ba mu di la fa fekk macha allah kon gis nga soxna Xari Jaxate liggéey bu rafet bi mu liggéey ci kër mën du Maar ginnaaw boo xam ne mën du Maar doon na ndénkaaneel yàlla ci kaw suuf ndax ma eh, boo delluwaatee ci wajur ma sayer lam waxoon mooy benn doom bu góor la am te bi mu fi jógee ci dal jàng rek lay tool ba batalewu ko nijaay ba batalewu ko bàyyi ndax li fi jëlee bàyyi mën na fee jëlee nijaay te ko bàyyi ci loxoom ku dut mën naa ruur moo tax mu dalal ko alxuraan na yàlla def naa li ma war ba noppi ne ko dénk naa la yàlla loolu moo tax euh, euh, sëñ kokki mhm. ba mu ko déggee mu sëñ deqale ba mu ko déggee mu ne ndénkee na yàlla kenn gënu ma ca yeey mhm. moom it matale na ko kóllëre mhm. jàngal ko alxuraan ba mu mokkal mu fab doomam may ko ba noppi boole leen ne ko kaay delluwaat si cosaan nga dem sañciwaat mu dem yeesalaat tey ba tey ba bépp waaye gis nga kon moom itam li ko soxna si wax ngir bëgg wéttal nga xam ne moom soxna si moo dem ba bëgg ku ko dimbale si ci kër gi waaye moom it mu bëgg lu lew te mënut a am leneen mu bindub téere di ko jaay mooy yàgg naa ñàkk jóge fii ba dem Bamba ndakate booba yàlla lépp boo dee xool am na lu muy ràbb li muy ràbb mooy diggante Serigne Touba ak kër sëñ euh, Taïba Taïba ndax bu delluwaatu toon foofa dafa fekk sëñ ma sëñ euh, Mor Anta Sali te am nañ alaaxa boo xam ne foofu lañ ko war a amee ñaareel bi barke bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ko war a séddoo ma nga nekk ci Ahmadou Bamba Sall mu ñu delluwaat Mbamba waaye moom it mu ñaa ko doon ku ñàkk kañaan li nga am li ngay wut am na fi mooy jënd téere bi jox la nga dem waaye boo fi toogee am na lu ëpp njëgu téere bi mën nañoo soxla ba ku bëgg tib téere ci yow lay ñëw mu toog foofa ngir wut loola ba sun borom jox ko barke boobu mu ñibbi siwaat nag bi mu ñibbi siwaatee nag fekkaat fi soxna Xadi Jaxate nan la toogewaat ak akum jotaayam xaw sax da am lu ma ji lu ma ji fàtte ndax waxtaanu waajur moom eh, bi mu demee Bamba Sall bi mu nekk sëriñ ba dana ko fa bàyyi ba mu gisee téere bi mu adressé ci Ahmad Nomar ibnu Masar dafa mel ne ku ku daanu jël ne ko yow kon tey bi nga bàyyi ko mu ne ko waaw mu ne ko ah, la ndax Bamba Sall moomu tey la jàngee la jàngee tey bi googu la tax mu ne ko nag li fi nekk day sa kër laa ko jële <laughs> boo toogee nag ñu ñu ko ci yow loolu loolu français boo xam ne dama ko fàttoon ci wax ji. Euh, muy lu am solo muy loo xam ne lu am solo la mag ñi xam-xam jaral na leen lu nekk daana daana daa leen jaral dem ba samp kër bàyyi lépp ngir xam-xam loolu wax dëgg yàlla bëgg xam-xam mënut a weesu loolu euh, bi mu dellu see tey ba bit yaakaar laaj bi noonu la waaw bi mu dee see tey ba dafa dafa sampa daara ji continuer ca liggéey ba bu ñu ba xam ne nag euh, tey ba dëkk bu yaatu la ay ay ay magam a nga fa ay baayam ak ñëpp nga fa ngir yaatal ndono li ci la gàddaayaat moom itam nag ñëw sanc Taïba Daxaar daa jóge Taïba bépp ñëw sanc Taïba Daxaar nga xam ne Taïba Daxaar moom moo ko sanc sanc Taïba Daxaar moom moo ko sanc moo boppam moo sanc Taïba Daxaar nekk fa moom itam la fa nekkoon woon li dong la muy jàng alxuraan ak di ko jàngale mujj eh, daanañu wax ne ci eh, boo bokkoon ne ci université yi nga xam ne la ñuy tudd université mooy dëkk boo xam ne matière xam-xam yëpp la ñu fay jàngale waaw bu nooraa sëriñ si ñu bari dañuy dañuy gàddaay seeni daara matière bu nekk am ñu ko fay jàngale bokk na ci si Maodo Salim yi daana fa noot si ànd ak njabootam gépp ak ñeneen ñeneen ci doomi soxna ñu bari euh, ba yàggul rek am na ku may nettali ca gam bi euh, genn kilifa gum gum fa dem am euh, gis mu bind ci ab téeram donga bi Ahmad Nomar nga xam ne kon fu nekk fu nekk lañ daan lañ daan bàyyi ko di dafa ñëw si am si Maodo Salim ñëw gi mu fa ñëw dafa fi dafa bari ndax am na doom joo xam ne fa la fa la gane àdduna ñu ko ñu may soxna Kumba Tayba la ñu koy ñu koy dàkkantale Kumba Tayba ñëw ga it mel na ni fekk na fekk na jamono sëriñ bi ndax bari na ñoo xam ne ci ci ci Tayba Daxar lañuy lañ lañ lañ jébbaloo ci sëriñ bi ku mel ne sëñ mu ñibu jégal Tayba Daxar googu la gis sa sëñ Tuubaa fa la fa la jaayante ak moom ñu bare bare fa lañ jaayante ak moom foofu it mel na ni Ahmadu Nomar yàlla teelal na ko wan kenn mooy sëriñ bi ba teel ko bàyyi xel teel ko jox boppam ak jox ko njabootam ndax loola firnde ja mooy kenn ci ay sëram daa mas a bàyyi ko Taïba Ndaw muy sëñ Mor Anta sëñ Mor Asta Sill dem ci yéen ne day jébalu ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko yéen day seen maam ba mu leen ba mu ma leen dénkee démb waaye du tey daane denkaan lu yàgg la daal ne ko nag seen barab boobu maam boobee ne ko fanko ndax wàliyu kaamil la loolu sëñ bi ko ko dénk euh, bokk na ci itam euh, lim li waree ne ko xamoon sëriñ bi la daana daana daana daana artu ak njabootam na leen Mudu Mbàkke moomu day da ngeen a toll waaye du seen maas daal daal leen wax ne bu leen ànd moom di ko jiitu bu leen euh, làng ak moom itam di ko teg di ko di ko teg mbagg comme ni nit def ak moroomam te boobu ñoom ñëpp ay ndaw lañ daaw leen boole ci benn bool loolu lépp ngir waggal sëriñ bi ak xam lu mu xamoon ci moom ci la waxoon ne wa kam abin xataala bi mu nin sara sarafan kama alat bi rasulillah adnaan te loolu si Ahmad Basir indi na ko ci irwaa nadim wax ne sëñ Tayba de ku teel xam sëriñ bi la ci ci jamono yooyu la la junjoon ne euh, maanaa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ni mu mel ci askanu Mbàkke euh, tu tànk bi ci saahir noonu lay nar a sigile ëllëg askanu Mbàkke dara wooteeku dara bokk na ci loo xam ne dégg naa ko ci sëñ Moustapha Ndiogos mu wax ne euh, sëriñ bi day wax na ne euh, maanaam jamono yi mu tolloo ci tajaawal boobu ci wëndeelu boobu dafa mas ñëw Tayba dafa nuyu sëñ Maodo Mar rek mu ne ko Ahmadou taal fu la ndëm taal fu la ndëm boo demee Fuuta ñu ne Cheikh Omar Fouti yu taal na fa nga dem Kajoor ñu ne diwa nga fa woon nga dem nga dem Gànnaar ñu ne Cheikh Sidiya nga fa taal fu lëndëm bawal gii ngay taal kenn kenn taalu fi moo leen ko ris fekk waxañ ne sëñ bi eh, natt yi war a ñëw ci moom eh, xawoon na ko def loo xam ne muy tajawul di di wër di wër di wër waaye du ko nuyu rek mu wax loolu amul taal fu moo tax sëñ bi daa ci teg ne dëkk gi mu dëkk dëkk dëkk bawal woote fi woote bi bala ca yàlla fay kenn dana ci fay Ahmadou Ndomar Sylla ndax moo ko fàggu kon kon kon euh, loolu loolu bokk na ci itam euh, maanaam li wax ne ku teel xam sëñ bi la maanaam ci jamono euh, mas naa toggal sëñ bi ndawul laax bi mu ko bi mu ci sëñ bi xewloo ba la la la mu ci laal ba noppi dafa dal ñëw sukk ñaari bati woo moom fi sëñ bi nekkoon moom sëñ Manoumar maar te boobu mag mag la lool ndax mu war a féete mag sax mu ranta sali daal di ne bisimilah ma fas yéene barkeelu booba sëñ baa ngi koy dégg moo tax si mujj ëstu borom xam-xam bu siiw daan wax ne sëñ Tuubaa dañ nee na baatu barkeelu ci man maa ngi ko njëkk a dégg ci seen maam sëñ Tayba Ndumbe Mar kon loolu lépp day war a ne kon moom ku teel a xam sëñ bi la woon ku ko teel a bàyyi xel la woon itam euh, waaye loolu na ko ndax njabootam dara génnu sëñ Tuubaa euh, tey yaakaar naa boo doon lim sët yi nga xam ne ñoo sëre ci moom nekk ci biir kër sëñ Tuubaa yi moom dana doy waxtaan. macha allah euh, jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf itam mbokki téléspectateur yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen émission bi de ëttu murit ñu di ko amal ci seen télévision bi di Lamp Fall TV ñu siyaar mbooleem koo xamante ni bi rek bokk nga ci askanu Tayba mm-hmm. euh, di siyaar bu baax baax nag sëriñ Ousmane Sylla ak sëriñ Deqale Sylla ak mbooleem njabootu ba gépp bàyyiwuñ ci kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaar ak mboolem buntu kër yi Tayba yi nag ñaar fukki penc yëpp fenn fu ci nekk ñu ngi jaar ña nga xam ne bokk nañ ci di jaajëfal sëñ Mbàkke Madina ci li mu andi ci leeral waaye li nga ciy delluwaat ba tey mooy mëndumbe maar ak nangu dogal bu yàlla am mm-hmm. nangu gi mu nangu dogal bu yàlla waaye loolu nag ku ñu dénk yàlla war ngaa mën a nangu ab dogalam ndax ku mel ne ku tedd ki Cheikhuna Ahmadul Xadim ak ni mu doone woon tuut tànk ci ak wetam nga xam ne sëñ Tuubaa du woon taaw sëñ Mamor eh, Anta Sali ndax Mbakke Anta ko mag soxna Faati Anta ko mag sëñ Mor Jaara mag ñoo ñëpp ñoo ko mag kon ca ca sëñ Mandumbe Maar moom ak sëñ Mbakke Mor Anta Sali kon sëriñ bi doon na doomam waaye doom ju ndawee ci ay zahir ci ay at la waaye bi teel a xam gi mu xam dogalub yàlla ci sëñ Tuubaa ba tax mu daan dénk ak njabootam na leen wax bu ma leen di royloo roy leen doomi sañ Mbàkke Mor Anta Sali jii ñëw fii yéen te bu ngeen ko doy roy bu leen ko def moroom bu ngeen àndeek moom bu leen ko jiitu bu leen làng moom te bu dara desut lu dul jëfit na ngeen ko yóbbaale ci jëf loolu yaakaar naa ne ku teel a xam nit mooy nangu loola ba noppi nangul ko ba noppi nangu sax njaboot di ko topp loolu ñuy wax it ne ndabul laax loolu moo xam ne moom la toggal sëriñ bi te sëriñ bi jëfandikoo ba noppi delloo ko ndab la mu sukk ñaari bëti moom te sëriñ bi daf ko bàyyeewaat biir biir balab ba mu wax tëb ko ne bisimillahi fas ci yéenee barkeelu nee sëriñ bi dafa dara kaalage mooñ na cell waaye loolu téewut ba mu demee ba gis ay sëtam la ne lii murit yi wax barkeelu de ci seen jur laa ko njëkk a déggee ci moom kon loolu teel a xam sëriñ Tuubaa gum teel a xam waaye it nag dafa mel ne ñu baree bari nag tey ba lañ gisee sëriñ bi ndax yaa ngi ciy wax ñeneen waaye ku mel ne maam Cheikh Rahima itam bi muy wër sëñ Tuubaa ku ne xam ne ne déggoon na fa am Ahmadou Bamba di doomi mëndu mémar te moom am Ahmadou bàmba lay wër ba muy bàyyi wër Ahmadou Bamba astu mbay dem fa moom du moom mu ñëw Ahmadou Bamba euh, faaxuja ñëw booba daal mel ne foofu la ko yàlla wane ki nga xam ne mooy ko tedd gi Seexu Xaadim waaw muy lu am solo euh, taali bi ci dafa am matale na solo matale na lool lool lool sax daa mel ne ñëwoon nga ci ak njabootam ci sëñ Touba li ci delluwaat ci sëñ Touba loolu nag dana dama dana yaatu ah. ndax damay damay faral xam naa li ñu desee ci waxtu bariwut sax mm-hmm. waaye damay wax ci le dama ci doon waxtaan ak kenn ci njabootu maam Cheikh ma Fall ma di ko wax ne ko yàlla ak xereñam waaye ak ak ak yewwuteeg Cheikh Ibra li Cheikh Ibra di wax ne sëñ Touba ne nee na yàllaa ko tegtal sëñ Touba mas na euh, xalam ak njébbuloom mm-hmm. bay wax ne yàlla mi ko moom mm-hmm. moo ko ne Ahmadu moo la moom raasi ko jox ko say pexe kon loolu day mel ne yàllaa ko tegtal eh, foofu li ma fi jàngate mooy bi sëriñ Touba nekkee Tayba Xay ci Ahmadou Bamba Assou mbay fa la njëkkee mu ne ko yow li ngay wër nekkut ci man waaye am naa sama jeneen doomi baay joo xam ne mi ngi fii demal fekk ko muy Ahmadou Bamba faaxuje ba mu ñëwee foofu Cheikh Ibrahima moo wax ne li ma yéem ci Mandoumbe Maar mooy xetuk sëñ tubaa gi mënumaa génn këram ngir moom te wóor na ma ne it du sëñ tubaa waaye Cheikh Ibra nee na ndakate booba leer yi sëñ tubaa yi ne ci moom moo feeñagut muy ku mel ne soxna Maymuna ak ku mel ne sëñ Abdou Samad ak ñu mel noonu leer yi sëñ tubaa yooyu ne ci moom moo may xeeñ ci moom te booba ñoom seeni wayjur sax feeñagut jamono te mënumaa génn kër gi te du moom loolu loolu xetu Cheikh Ibra ni ko sëñ tubaa di xeeñe du ñu xeeñe ku yàlla bind waaw waaye nag mën Mandoumbe Maarit nag nitu yàlla la woon piir goo xam ne bala ñuy tëj jotaay bi faw nga an ñu lenn ci ay jikkoom ak njabootam gi nga xamante ne bii eh, ñoo ko wutu ginnaaw. ok jërëjëf eh, waaw loolu de lu am solo la sëñ Fallou Ahmadou Omar day lenn ci ay jikkoom moom di koy sang rek jikkoy nitu yàlla dëgg eh, jëmm joo xam ne boolewut yàlla ak dara jaamu yàlla te wéetal ko di ci yar ci ak njabootam. yar ci mboolem ñi ànd ak moom sanc ay dëkk ngir jàng alxuraan ak di ko jàngale bokk na ci bi mu sancee Taïba Dakar dane bisimilahi ba aljanna taalu ba aljanna taalu jàng moom boobu ba tey fayagu te du fay insha allah euh, loolu pas-pas boobu la amoon mboolem itam ñi nga xam ne jamononte woon nañ ak ñoom nawla woon nañ ko bàyyi woon ko xel itam mu doyal leen ci seen wàllu diine Euh, ku toll ni sëñ Mor Anta jamono yi mu génn àdduna li fi nekkoon ci ay doomi soxna bari na lool kon kuñ ne yaa koy taxawee ci yooyu jamono ku ne xam na ne ku doy nga te bi sëñ Mor Anta Sali génn àdduna moom la dénkaane na ko taxawu kon euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Moundou Mar moom damay wax toujours ne leen lu man di xew jiite na sëñ Tuubaa ndax ba Mor Anta Sali ba ñuy ba ñuy jullee sëñ Mor Anta Sali ku tedd gaa ngi ci sappe sa te it julli wu ko daal di ñibbi te diir moo fa nekk mooy jiite maanaam nag loolu eh, ku ne xam na ne kon ku ci wàllu diine ku ñëpp doy la la ak sa eh, xew yëpp noonu it la amoon na laa xam mboolem ñi nga xam ne doomi soxna yi nekkoon ci réew mi diggante lappeek eh, ñi sant jaxateeg sillaak waa kër sëñ cumbureen mor yaasin ñëpp joxoon ko cër boo xam ne jikko sang yaa ngi gisoon ci moom rek moo tax ñu bàyyi woon ko seen lépp noonu noonu la yar ak njabootam moom mi ngi taawaloo ku ñu wax sëñ Mor Xari Sill teg ca Masamba Asta Sill sëñ Mirina Masamba Xari Bamba Faaxuja Sill maam Njaga Maram euh, maam Maseer Faaxuja ñooñu la am ci ak Matar Pen Matar Sill ñooñu la am ci doom yu góor am ña ñeent yu jigéen soxna Jeng sil euh, Faati Sill soxna Xari Jeng ak soxna Seynabu Euh, am na kuñ ci joxoon suñ Masamba an suñ Masamba Mbàkke moom ci sëñ soxnañ bàcc ci njabootam ci njabootam googu euh, comme ni ko waxee jaxasoo googu loolu yaatu na lool waaye ku ma damaa jëlalee suñu mu doomar waaye mboolem yooyu ma tudd tey euh, ku ci nekk rek da nga da nga fees sa jamono bokk na ci baaxu sëñ bi loolu sax baaxu bi laa ko mën a tuddee ak baaxam àgg foofu rek waaye moom jëmut kenn waaye daana wax na cey man de yëm naa ma doomar ndax ñaari ma sàmbaam yi raw ma leen te gënu ma leen waaye teewul mu teg leen fële rek nekko ko dang moom loolu nga sëñ bi rek ndax kenn moom waaye loolu day wane ne ñaari doom yooyu ñu amoon cër ci yàlla lañ ak ñi ci aju ñëpp muy sëñ ba sëñ Bamba Faaxu Ja ku ne xam na ne moom meññi soxna xari sill ak soxna xari mbar noonu nga ko noonu nga ko léegi dafa doy sëkk muy ñaar leer sëñ Tuubaa yoo xam ne eh, feeñ nañ ci ëtt waaye boo doon boo doon dikk ci eh, ñi nga xam ne sotoo ñu ci moom ci sëti sëriñ man doon naa ko bind jaaw aw kayit na jotaay bi dañoo kii waaye mën nga ci lim eh, ñu bari ñoo xam ne tey ba lañ wàcce lañ ware dugg ci kër sëñ Tuubaa te kër goo ci dugg rek am na ko fa nekk njabootug morant njabootug sëñ sëñ morant sëñ ki morant si la gépp waaye nag man jàpp naa ne seen xalaaxe bépp itam mbokk gu amoon na fa ndax dama gis ci gëstu ne Soxna Sali waaye juru sëñ morant Sali eh, Masamba Xayta Mbay moo ko dëkk woon ginnaaw Mamballa te Masamba Xayta Mbay moom yi moom la joxoon soxna a Sill mu bokk ak Ahmadu ak bàyyi kon ñàkkul mbokk deret goo xam ne it dox na fa sëñ Masamba Xayta Mbay moom yi mook Anta Sali kan mi jur suñu moro Anta ay doomi daal si ñaar Xayta ak Bintu Sekk ñoo bokk ndey ak bàyyi Bintu jur sëñ sëñ Anta Sali kan Xayta jur Masamba Xayta Mbay moo tax bi Mamba lay bàyyi bàyyi ko ñu jël soxna Anta Sali jox ko sëñ Masamba Xayta Mbay moom te Masamba Xayta Mbay moo yoroon Asu Sill mu bokk ak Ahmadu Nomar ndey ak bay ñu dikkaat euh, sëñ Mor Anta jël jigéen bu mbokkal ndey ak bàyyi jox ko mu Mar muy soxna sa Mbàkke waaye jële sëñ Masamba Asta kon loolu it da xam ne kon alaaxa euh, mbokk diine am na waaye mbokk dere itam am na ci biir kon ñoom ñaar moom ak jaxasoo yàgg na yàgg na yàgg waaw. naa kàddu yi ngay di sant bu baax rek di la sant itam di ñaan suñu borom mu sàmm la te dëgëral ndax liggéey bu am solo la ndax jamono moom moo toll foo foo xam ne. kenn ku nekk la nga am yaa ngi koy eh, téye ak di ko wagar te ku am lu mel ni maam yu riis yu mel ni yu mel nii waxtu wu nekk war nga leen di fàttaliku di yaatal seenu doxin yaatal ga ak fàttaliku itam du leen rek lu may ngir ndaw ñi nga xam ne ñuy doog dugg àdduna te fëkk fëkk yi bari lool ndax woote yi wuute na lool ak wuute nag du fi jug kuy wuy ji nay seetlu kay wooteeg la muy woote kuy def lu yëngu nga jug luy sas nga tab bi ca biir doo teelu doo teelu mbir moo dégg dem seeti yaakaar naa ci eh, kumpa ci ci ci ci musiba rek ngay dugg kon nag kenn ku nekk war ngaa xam fa nga bokk xam la xam am bañam rus xam loo war a def ak loo a def loolu nag la koy mooy ñu nettali la say maam démb ak barki démb nañ taxaw woon dana la dimb la ci sa doxin tey kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy eh, fàttali suñu mbokk yëpp rek di la sant di ñaan suñu borom sàmm la te dëgëral euh, liggéey bi yaatal itam euh, site bi ak euh, mboolem jumtukaay yi nga xam ne ci nga yaatale liggéey bi yàlla defal la ci tawfeex bu baax a baax di wax ne bëgg nañ lool li loo am solo la wax dëgg yàlla wax waxewuñ ngir pogar wu ne sunu maam nii la mel waaye nag ku yàlla defal taw feex itam nga bokk fu baax war nga ko gëstu ba xam ko ba it ëllëg si lu ca waaye wax lu dul noona nga mën koo teggi teg fële loolu daa bokk ca fayda xam sa bopp kon nag yàlla yàlla dimbale defal ñu tawféex ak sutura asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah xam naa li ngay wax toujours ne boo xoolee bokk yi taali jàngu yépp ñoo bokk fuñ taale ndax tudd nga fii caqami Anta Touré Anta Touré jóge fa tudd nga Pew Fall tudd nga it Longoor tudd nga itam ndogal te yaakaar naa ne boo ko dee xaal xool foofu Assou Mbaye ma nga xamante ni bii moo tàbbi woon ci Taïba mm-hmm. da ngay delluwaat ca Longoor fekk na ne Mor Soxna Fall Syll itam mm-hmm. way juróom daa jóge woon ba delluwaat foofa te ku ne xam ne Longoor fa la Maba Jaxu jànge mm-hmm. kon gis nga bokk gi ni ko yàlla yàlla yàlla boolee te nag ñu njëkk ñoo ñu nga xamante ni ñoo yoroon taali jàngu yi bi yàlla indi jamono ku mel ne Cheikhuna Ahmadul Khadim ci taal jàngu yooyu rek la mën a wàcc mun mënta wàcc feneen moo tax ñoom rek ñoo doon seeni maam eh, moo tax toujours di waxtaanee eh, ki nga doon dana tax buñ la bëggee dugal ci kaneen ndax nit ñi jaawale daa yomb mën nañoo seen ab bët bëtóor jaawale kooku unk wala ñu seen ub si ndax jaawale kooku umb mm-hmm. da ngay teel a xamle nag yow du ma unk ndax loolu boo ci wax da gaay dugal la faneen ndax waxkat yi daa bari ah. te léegi kuñ seen rek ah. boo solee mbu mu jekk yor ñaari dërëm ñu daal lay bëgg wax ci ay maam ca duñ ko xam mën nañ laa dugal foo xam ne doonoo fa te doo mën a wax ne duma ma kooku moo tax nag teel a xam sa bopp te di ko waxtaanee ba gone yi nga xam ne ñi ngi ci jamono lu leen àdduna mën a yóbbu yóbbu yóbbu rek ñoo xam ne man kat ndakate maam yu mel nii laa amoon kon war na may def attention war na maa xam fu may sama teg sama tànk ndax dafa am ku baax yar di sëriñ Modou Rokhaya ma daan wax ne xam sa bopp bokk na ci jaamu yàlla ba mu yàgg sax na mu ne mooy dëgg dëgg jaamu yàlla ndax yàlla daa am fayda bi ñëpp jógee di ko jaamu ji dana eh jéem leen maa xam ba noppi waaye man kenn du ma jaamu te moom ma waaw aarifoo nii xat la antax bu doon yi waaw kon nit kii tam war naa xam boppam moom itam ba mën a xam fi muy teg tànkam daal di ma wax ne koo xam ne foo jaar foo jaar ci guddi gi soo xëyee mbooloo mooy topp sa tànk der jàll fu leer te koo xam ne ba ab dëkk lëjee yaa ko war a lijjanti waroo lëjal dëkk ba koo xam ne bu nit ñi coowoo yaa leen war a àtte waroo tàbbi ca coow la te loolu mooy ñii rek kon kon ñi ngi lay sant bu baax a baax ci leer gi nga xam ne indi na nga leeral nga ko mm-hmm. di sant itam tam ko leen bokki télévision euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñooy jàkkaarlool mm-hmm. di santaat nag sëriñ Mahmoudan Sill mm-hmm. euh, moom sëñ Mur Seynabu euh, moom sëñ Mirina mi nga xam ne jataay bi ci këram lañ ko ameloon di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp di leen joxaat rendez-vous ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وافتح لنا كل باب بالدفاع ولسانه من خلاتي لو كان من كل ما نحن ونحصل وهب لنا كل ما نحتاج ولا يخلو بلاد ويا على المسلمين بارك امين بارك ما شاء الله بسم الاله فن الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الاله فن الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الله في الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا تريد